du territoire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on aimerait... Monsieur, monsieur, le ministre, s'il vous plaît, on aimerait avoir juste votre appréciation sur la venue. Voilà. Voilà. voilà ñoo ko déggandoo donc ñu déglu kii di. ñu di la ziare euh, di bëgg a taataan ci kàddu yi ak ziar bi ak lu waral tànk yi fii ci kër gi. bismillahi rahmaani rahim. ñoo ngi euh, nuyu mbooloo mi di leen nuyu yéen journalistes yi ci liggéey ci liggéey bu rafet bi ngeen ni def di wax ne tànk yi tey tànk yu jaadu la ndax màggal Tuuba bu dëgmalee yaakaar naa dafa doon wareef ci képp kuy kilifa ci réew mi lépp lu nga xam ne dafa bokk ci responsabilité mu seq ay jéego fas yéene taxawu bés bi fexe ba bépp sénégalais. bépp taalibe boo xam ne am nga yéene jëmmal li nga xam ne sëñ Touba daf ko digle ne woon lépp luy suma mbégte képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la bés bii bu jotee lépp loo xam ne rek mën nga ko def ci ab cant na ko def looloo waral tey euh, ñun tam ñu ne dañuy ànd ak taalibe yi ci yéene boobu ñu am ànd ak sëñ bi ci cantaane googu mu cantaane looloo tax képp kuy kilifa ci zone bi képp kuy euh, mooy maanaam gouverneur rek préfet ministre yi ak domaines yi ñu nekk premier ministre président de la république comme ni ngeen ko gisee kenn ku ci nekk rek lu mu mën daañ ko def ànd ci ak xeeb ngir accompagner bés bu sell bi doon bésub cant doon bésub ñaan comme ni ngeen ko xamee yàlla na dogal na ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la ñu teg ci bopp réew mi te yéene boo gis dafa war a ànd ak ay ñaan te bés bi itam bésub ñaan la bésub cant la waaye bésub ñaan la moo taxoon euh, ñu farataal ñëw ziar sëñ bi kontaan nañ lool nag. kontaan ci dalal ci dalal bi ak ci ñaan yi mu ñaan jëmale ko ci gouvernement bi ak ci réew mi lépp. gisante bi tey lan ngeen ci jàngat ak euh, lan ngeen ci yëg. liñ ci jàngat ak liñ ci yëg mooy kilifa goo xam ne yërmande ak cofeel la am ci. premier ministre mi ko seet si tey ci président la république mi nga xam ne jóge na fi barki démb ci mbooleem gouvernement bi ak ñeewant gu mot sëkk la am jëmale ko ci euh, ci ci ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu toog ci responsabilité wu jéem a développé réew mi yëg nañ ku ñu déglu yëg nañ ku am cofeel yëg nañ ku am ñeewant waaye yëg nañ tam ku taxaw taxawaayu jàppale jàppalinu jàppale bi nag doorul tey démb la ndax tey président Ousmane Sonko fàttali na ko ne néegi nii ca daaw la nekkoon ci jafe-jafe nekkoon ci grève de la faim ay njabootam ñëw fi mu ci tàndarma yónnee ko ko loolu kii jëf-jëf ju mel noonu mooy jëfu kilifa jëf kilifa gu am yërmande kilifa kilifa gu ànd ak taxawu tey loolu la Ousmane feddali ci wetam tey sëñ bi am ceeg mbég wan ko ne ko véritablement tax fa ma taxawoon démb foofu laa taxaw tey ci accompagner gouvernement bi tas képp kuy jug di liggéeyal jaam yi rek kooku ku ñu war a taxawule la ñu war a jàppale la donc tey sant nañ lool ci yëg bi nu am tey. Euh, voilà dafa mel ni fi mu ne nii nag euh, le PM mu ngi waajal euh, daal di génn xam naa rek ñu taataan kaddu yu mujj ci le ministre Moussa Balla Fofana. ci tontu bi ci ci laaj wi sunu taxawaay di taxawaayu gouvernement bi lépp mooy képp ministre boo xam ne rek ci domaine éducation domaine nu santé domaine nu assainissement. yëg nga ne ci liñ la dénk am na loo xam ne boo ko boo ko defee Touba jaam yi gën a am dal dañ koy def ñun bañ ñu dénkee urbanisme cadre de vie hygiène publique ba léegi bépp set setal sax ñëw nañ ko ànd koog sëñ Cheikh Thioro doxal ko ci dëkk bi matériel lu ñu am andi nañ taxawu kuréelu daayira yi nga xam ne ku leen fekk ñoo ngi ci liggéeyu ca di set ak setal ñu ñëw seet luñ ci mën a dolli ndax Touba kat moom Touba dafa ne ci yoonam da ngay ñëw rek fekk ko jàppale ko ca loola Euh, te li ñu fas yéene tam bokk na ci projet bi nga xam ne ñu ngi koy tëgg jamono jii ànd ceeg suma secrétaire d'État Mama Talla Ndaw nga xam ne moom lañ dénk lépp lu mbiri logement mu may taxawu ci liggéey bi am na programme bu ñuy naal programme boo xam ne lañ ci jublu mooy fexe ba képp ku bëgg am foo dëkk mu yomb ca yow ba noppi sa dëkkuwaay doon dëkkuwaay lu nu lu nu settantal loolu Touba dañ ko ci wutal wàll gu baax maanaam daanaka sax ville bu bees boo xam ne dañ koy yokk ci Touba gën ko taaral ngir mën a euh, urbanisation bi mu topp ñuy wax sax rurbanisation ndax Touba li ko gën a wër ay village la donc tey foog ñu gàttanu loolu tabaxaat dëkk bi jéem a góorgóorlu dimbale sunu sunu jëwriñ bi nga xam ne mooy yor yor mbiru assainissement seet nu ñu jàppanteleeg moom ngir liggéey bi gën a yem ndax ñu ñëpp comme ni ko wolof di waxee ay yenn ko tuxat den dañu yëgoo ñun ñëpp ñoo ànd yëgoo di jéem a góorgóorlu ci dëkk bi. la chaleur mais un petit résumé en français vous avez euh, première réaction parce que c'est euh, en tant que ministre et en tant que membre Je rends à Dieu. Je rends grâce au Créateur qui nous a donné cette Cette opportunité en tant que fils de ce pays à qui on a confié des responsabilités de pouvoir contribuer à l'organisation de cette grande journée qui est cette journée de, de Magal de Touba. Pour nous, c'est une grâce et on rend grâce à Dieu. Et c'est pour ça qu'on déploie tous les efforts que nous pouvons avec nos autres collègues ministres pour apaiser et améliorer les conditions de Magal pour nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner le Premier ministre qui a rencontré le Khalif général des Mourides et nous sortons de cette rencontre avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de, de, de, de fierté. Fierté d'avoir comme chance ce guide, euh, Cheikh Muntaha Mbake, qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses bras et qui nous a démontré que nous étions dans l'opposition, comme aujourd'hui au pouvoir, il sera toujours à nos côtés pour nous accompagner, pour nous conseiller, pour nous guider, mais surtout aujourd'hui nous appuyer dans cette mission qu'on nous, qu nous a confiée de travailler pour le développement de ce pays. Et nous avons senti un saint conscient des enjeux et des défis et qui est prêt à nous apporter bénédiction et accompagnement. Et ça, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité inouïe que nous, que nous avons d'avoir un tel vénéré guide pour, pour Touba. Voilà, vous, vous lui avez rendu euh, visite, aussi euh, qui se développe de jour en jour. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez préconisé en tant que ministre de l'urbanisme, en, en, salle de l'urbanisme Alors, vous savez, depuis qu'on nous, qu nous a confié ce portefeuille, qui s'occupe de tout ce qui est euh, cadre de vie, logement et, euh, et, tout ce qui est hygiène publique, nous avons euh, mené plusieurs activités. Et même dans le cadre de la journée 7-7 euh, qu'on organise, nous sommes venus ici à Touba le faire à plusieurs reprises. Nous avons aussi accompagné la communauté de Touba, parce que qui connaît Touba saura que Touba, les gens sont organisés, structurés et toujours de la gestion du cadre de vie. Et nous avons tout fait avec notre directeur en charge du cadre de vie, M. Kosso, pour accompagner ces communautés-là. Alors, nous ne ménagerons aucun effort. Et c'est véritablement le leitmotiv de l'ensemble des ministres. Ensemble, nous nous donnerons main la main et nous travaillerons, que ce soit sur des questions d'assainissement, sur des questions du logement, du cadre de vie. C'est ensemble que nous relèverons le défi avec les populations. Et je le disais tout dans le cadre du programme qu'on est en train de structurer avec le secrétaire d'État, M. Mamata Landaou. On est en train de travailler sur un programme national d'accès à la propriété et pour un cadre urbain rénové. Et Touba aura la part véritablement qui, qui, qui, qui est, est la sienne. Nous pensons même travailler sur un tout nouveau quartier, une, une zone d'extension dans laquelle nous allons travailler pour pouvoir offrir un cadre urbain rénové et ainsi contenir la rurbanisation que nous constatons et qui est un phénomène assez présent au niveau de Touba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. voilà donc euh, fi mu toll nii nag dégg nañ kàddu yi nga xamante ni. le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire daal dina koy yëkkati mooy ay kaddu yoo xamante ni ah, xaar nañu ko waxtaan na ci li nga xamante ni tey jii nii